Ecotra def di entreprise bo xamanteni ne bii doomu réew mi doomu Sénégal ku tudd Abdoulaye Sylla moo créé en 2006 tey am na fukki at ak juróom Abdoulaye Sylla dépensé na lu mat juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari milliards jënd ko matériel mu di ay engins di ay camions di ay unité industrielle lépp nekk matériel boo xamante ne bi dafay jariñ bâtiment ak travaux publics Abdoulaye Sylla mu ngi fay lu toll ni juróom-ñetti téeméeri nit Ecotra am na masse bu toll ci cinq cent millions juróomi téeméeri millions yow de Ecotra am na chiffre d'affaires cinquante deux milliards en deux mille waaye tey jii bu ñu leen woowee dafa am loo xamante ne dañu ko dund mu nekk loo xam ne yaakaar nañu buñ ci doxul mën na sooxe

nee na moo am dëkk. doole jooju attekaay bi gën a mag ci Sénégal nee na ankay am ngeen ko. am kay mën ngeen ko. bu ci yokkee nag li nga xam ne nag mooy dëgg nag te di dëgg nag mooy Ecotra rek moo ci nekk. mooy entreprise sénégalaise. boo xam ni ci kanamu ñi jóge bitim réew di xëccoo marché yi moom mooy drapeau Sénégal mën leen duma leen di leen caw bu baax te xam nañ ko ñoom. ñu naan ko mënoo am fukki milliards ak ñaar marta fukki milliards ak ñaar yooyu xam nga ay caaxaan la ñu ñu fi liggéey doomu réew mi gis ngeen leen fii ñu toog ñu taxaw nii xeex chômage bi ñuy wax écotra ci njëkk am na nag benn écotra boo xam ne xam nga rek siiw du jàmm boroomam comme écotra fi mën am na benn samba booy bu tudd écotra ak ñaari see dem di wut ay marché ti moom dañ ko sax ni ko waratoo liggéey ndax yow yow vraiment yow amoo jom <laughs> dañ ko def liquidation muy dem di sàcc joxe suñ tur Ecotra ñu doon jox ay marché ay milliards lii aussi gouvernement bi da ngeen bëggee yee loolu ñu joxe marché yi Ecotra boobu ñu jox marché xaw ma Sandaga la xaw ma Ecotra sàcc la du Ecotra baax bi wàññi pauvreté bi Ecotra ci njëkk kon gàcce ngaalaama ci Ecotra te loolu la Cour suprême wax ñu bëggoon nag ñëpp dégg ko gouvernement bi dégg ko parce que mën naa am sax mën nañ nax gouvernement bi wala ndax président de la république ba du xam ni mu demee